asalaamaaleykum jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy bàyyi xel ci wasaare làmb ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jaajëfal bu baax a baax a baax tey jéggaluwaat bu wér tey nag dañoo fa yéene jéggalu suñu mbokk internet yépp euh, ci liggéey bi nga xam ne amoon na benn rythme ba ñépp doon ci gis seen bopp euh, di ko bàyyi xel saa su nekk ba benn instant rek ñu xaw a def li ñuy wax bàyyi suñu loxo donc loolu lañ leen bëgg expliquer ba ngeen euh, comprendre dëgg dëggi li waral loolu ndax wasaare depuis ñu ko créer ba léegi leen rek moom mooy objectif am mooy dab bànneexu internet yi ndax ki nga xam ne nii jëndaloo ko connexion wutaloo ko téléphone dafa ñëw abonné ci yow uniquement parce que li ngay def neex na ko donc kooku doo mën lu dul di ko satisfaire sa chaque jour doo mën lu dul li muy li muy wër ci yow wala li ko tax abone abonné si yow chaque jour mu koy gis loolee moo waral mu am benn benn benn euh, contrat de confiance boo xam ne dox na suñu diggante ak suñu mbokki internet yi ba ñun dañuy bëgg saa su nekk saa suñu xëyee dañuy dox ci loo xam ne da leen di bégal saa suñu xëyee dañuy fexe am ay vidéo yoo xam ne bu ñu ko dugalee mbokki internet yëpp kontaan mbokki internet yëpp bég ci loolu nag ñoo am benn ndokk ndog muy mbir moo xam ne dab na nanu dab na wasaare muy ay gàllankoor di ay yàqu-yàqu di ay xeetu ñaawteef yoo xamante ni def nañu ko ba waral liggéey bi ralentir bu baax a baax a baax a baax a baax day baax nag ñu expliquer leen wax leen mbir mi naka la demee pour ngeen xam li waral wasaare léegi di dugal par benn vidéo ak leneen ak leneen parce que ñu ngi ci liggéey bi malgré mais ñu ngi aussi ci ay recherche parce que toogatuñu euh, guddeeg bëccëg ñu ngi wër mbir mi lenn la mbokk yi euh, équipe wasaare bi dafa am ñoo xam ne dañoo euh, demoon tournage bi ñuy demee tournage bay retourné juste ay côté vingt heures bi ñu agsee ba ci côté croisement Cambérène ci wetu passerelu maris bi ci la leen ay ñaaw defkatu ñaaw def dogale bi ñu leen dogalee nag agressé leen Euh, nangu matériel yi nga xam ne moom la yoroon boo xoolee matériel yi ñu yoroon euh, tolloon na ci ñaari sac ñaari sac yu ñuul sac yu noir yooyu ay caméra la yoroon sac bu ci nekk mu ngi yoroon benn caméra Canon 7D euh, ak lumière LED ak micro sans fil ak aussi carte mémoire ay batterie caméra batterie lumière ak batterie euh, micro euh, ak benn micro sans ak benn micro cravate donc boo xaymaa li nekkoon ci ñaari saag yépp day nekk euh, ñaari caméra Canon yu 7 ñoom ñoo ci nekkoon caméra bu ci nekk am na objectif ñaari objectif mu ngi woon ci ñaari caméra yi am na beneen objectif boo xam ne focal fixe la mu ngi woon ci biir saak bi aussi Euh, amoon na ñaari microphone sans fil euh, ak seeni récepteur amoon na aussi euh, ay lumière ñaari lumière LED donc amoon na aussi batterie caméra batterie micro batterie lumière ak ay yeneen accessoire lu ci mel ni ay carte mémoire donc yooyu moom moo nekkoon ci biir sac bi ak benn micro cravate comme ni ñu leen ko waxee sànq. donc loolu moom moo nekkoon ci saak ñaari saak yi nu yoroon euh, teewul aussi ñoom seeni kalpe ñaari reporter yooyu ku ci nekk yaa ngi woon ak sa kalpe boo xam ne am na sa carte d'identité nationale am na carte bancaire am na aussi carte de presse euh, ak euh, tuuti weccet parce que benn kalpe bi li ci nekkoon sax bariwul 3000 francs la beneen kalpe bi 15000 francs moo ci nekkoon donc au total loolu moom moo nekkoon ci biir saak yi ak ci biir kalpe yi plus trois téléphones portables yi nga xam ne reporter yoroon nañu ko kenn ki mu ngi yoroon ñaari téléphone portable benn bu Samsung ak benn bu Itel keneen ki mu ngi yoroon benn Tecno donc def euh, defkatu ñaawteef yooyu bi ñu leen dogalee dañoo nangu matériel yépp bàyyiwuñu ak ñoom dara euh, fekk na sax image yi nga xam ne moom lañ jëlee woon tournage yooyu aussi mu ngi woon ci biir caméra yi noonee nag ci la ñu def dem ñibbi par la suite ci la ñu localiser benn téléphone bi nga xam ne yoroon nañu ko muy bi parce que instant boobu mu ngi amoon connexion ñu localiser ko ba xam waa ji fan la dëkk fan lay fréquenter fan la nekkoon ak bagages yi période boobu euh, bi ñu xëyee nag dañoo def li nga xam ne moom la leen yoon may ndax bagages yooyu boo xoolee euh, bi ñu xëyee dañoo le le dim dimanche la woon dimanche la woon euh, bés bi foog naa le douze le 12 juillet la woon waaw dimanche 12 juillet la woon bi ñu xëyee ci altine bi def nañ leen yoon may mooy def euh, benn plainte kontr ki nga xam ne moom moo def loolu parce que xam nañu ko ñu ngi koy wax Akon mu nekkoon benn ancien mbër boo xam ne mbër bu yàqu la ñu koy wax benn euh, ancien mbër la woon nekkoon pikin mbooloo foofu la nekkoon donc euh, dëkkoon ko côté Pikine côté Daaru foofu la dëkkoon autant ñu koy wax Akon ñu gën koo xam ci Thierno Seydou gay loolu mooy turam vrai Thierno Seydou Gaye mooy turam vrai mais Akon loolu la ko ñëpp xame photo bi ngeen di gis nii moom mooy photo bi ñu defee nag euh, plainte bi adressé ko ko moom ci lañu ko bàyyi ak waa police bu parce que police bu Thiaroye la ñu njëkkee ñu ne ñu moom jidde Thiaroye kaw bi mu dëkkee noonu wala bi muy fréquenté zone boobu bokkul ci ñoom ci police bu Géejawaay la bokk ci la ñu dem Guédiawaye def fa plainte bi ñu defee plainte foofu aussi police bi mu ngi ciy liggéey mu ngi ci euh, liggéey liggéey bu mucc yib sax mais ñun aussi tooguñu woon parce que ñu ngi woon sur le terrain di cueillir ay information yoo xam ne ni danañu permettre ñu xam réellement Akon fan lay fanaan bi ñu ko xamee aussi jébbal nañ ko section de recherche bi nga xam ne moom moo yoroon dossier bi mu nekk ci liggéey ci liggéey ci ba période bi ñuy def descente këram c'était environ à quatre heures du fekkuñu ko fa donc euh, bi ñu ñëwee fekk ñu ko fa dañoo fekk mu mu mu bougé foofu lañu ñu ramassé waale euh, passeport am donc doog a xam turam vrai muy Thierno Seydou Gaye ñu gën koo xam ci Akon mooy photo bi ngeen di gis nii ñuy alerter rek gars yi yëpp mooy suñu mbokk caméraman yi nga xam ne ñu ngi sur le terrain parce que liggéey bi du liggéeyu biir néeg liggéey bi du liggéey studio làmb moom ku ko wax euh, wax wàcc sur le terrain fekki mbër yi jëli leen def seen promotion ñun ci loolu la ñuy yëngu te site internet yi yëngu ci làmb yépp ci lancé boobu la ñu nekk donc ñun ak mbër yi ñun ñoo far ñun ak écurie yi ñun ñoo far ñun ak axlu làmb ñun ñoo far mais bu amee benn ancien produit làmb bu def jëf ju ñaawee nii def ko ñoo xam ne làmb la ñuy liggéeyal affaire bi day xaw a day xaw a yéeme àgg ci dimension boo xam ne nii eh, séntuwuñu ko woon foofu ndax nag ñu bari gis na li ñuy taxé làmb bu làmb amut xale yi dañuy agressé bu làmb amut xale yi dañuy defi naka sudut noonu leneen ak leneen mais loolu mën nañ ne ñi ko ciy def ñu néew la parce que am na ñoo xam ne nii lu leen seen ngor mayut euh, du leen ko xañ donc am na ñoo xam ne lépp lu ñuy def lu ne rek day nekk loo xam ne ku leen ca fekk doo leen yedd mais am na ci yeneen ñoo xam ne it euh, la yàlla xam doy na c'est le cas de ñuy alerte suñu mbokk yi caméraman yépp di yëgal aussi ak làmb ne li nga xam ne moom moo dal wasaare làmb kenn tegu leen ko ku dul Akon di Thierno Seydou Gaye ñuy ñaan nag gars yi képp koo xam ne nii euh, yaa ngi koy gis wala yaa ngi gis ñuy jaay matériel yi wala leneen rek mën nga ñoo contacter ci 78 457 43 52 457 43 52 donc moom mooy numéro boo xam ne boo ñu si woowee di nga ñu jot pour ñu mën a retrouver waat suñu matériel yooyu ñuy jégalu yëpp nag ñëpp nag mbokki amateur yeeg ñi fare ci làmb ñëpp ñu ngi leen di jégalu parce que liggéey bi bëggewuñu ko woon noonu bu ñu sañoon saa suñu xëyee ci lancé bi ñu nekkoon ci rythme bi ñu nekkoon li nga xam ne moom ngeen soxla ci ñun ba tax ngeen abonné ñu leen koy jox comme ni ko gars yi di waxee live and direct donc loolu euh, moom moo nekk suñu mébét moo nekk suñu yéene te moo nekk suñu cër aussi euh, xaw na gàllankoor liggéey bi nag bu baax ndax lu bari jaar na fi ci wàllu làmb loo xam ne nii waroon nañ cee liggéey liggéey yu mucc ayib euh, à part combat yi nga xam ne dèjà taxawoon na ba pare am na yeneen yu taxaw si ginnaaw lu ci mel ni Balla Gaye Gris Bordeaux lu ci mel ni Bombardier Eumeu Sène lu mel ni Tapha Tine Boy lu mel ni Gris 2 Abdou juuf lu mel ni Garga Mbossé Sa donc yooyu combat Frank Tyson 2 yooyu combat nekk na ay combat yoo xam ne nii taxaw nañ bëggoon nañ cee liggéey te danañ ci liggéey sax incha allah danañ ci liggéey liggéey bu mucc mais lii c'était euh, euh, mën naa ne lii Euh, benn benn benn kii la woon rek benn mais lii lu mënutoon ñàkk la moo taxoon ñu ne il foo ñu expliquer mbokki internet yi il faut ñu expliquer mbokki làmb yépp ne wasaare làmbkat kat période bii nga xam ne nii euh, gis nañ liggéey bi di ralentir lii moom moo waraloon liggéey bi di ralentir ñuy jéggalu ñëpp di jaajëfal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm tabaski bii nga xam ne moom la ñu dëgmal. yal na suñ borom teg loxo ba képp koo xam ne am nga ci soxla mu saafara ko képp koo xam ne yaa ngi ciy yóotu dara rek te mu jig la yal na ko suñ borom yombal ba mu yegsi ci ni mu gën a gaawee cant ak ngërëm ñeel na leen mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox di daje ba léegi incha allah ci yeneen i xew-xew làmb jërë ngeen jëf.